faatu ñëpp a ngi gisee dañuy seeti wante it nag comme nii si di la biñ demee ñu dugal ko ci bàmme muy dugg rek commencé di seeti ay xaritam ak ci soppeem ma i maamam yëpp waaw. am na ci benn nit bu ma doon waxtaan mu ne ma diw ma ne ko ah, mu ne ma diw de nee na bi mu faatoo ba tey seeti na fi yonent yàlla Suleymaan ma bu jot nag dañuy seeti yonent yàlla euh, Suayb àjjuma bu jot dañuy seet yoon ci yàlla Suwaybu ndax moom lañ ko délégué moo yore ay mbir mu ne waaye jot naa seeti diw ak diw ak diw ak diw wax ma ñi mu seeti ñi Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass fu mu bàmmeel bu mu mos a toog lay wax ak borom su ko neexee mu wax la nga déglu Baye Niass mi bàmmeel bu mu mos a toog lay wax ak borom muy tontu ngay dégg. lan lan lan lan ndax ko soriwul soriwul bu taxee rek boo ko defee xam ne yëf yi neex na ah, neex na trop foofu moo dàq foofu amul saaga amul xoloo amul xeex amul dara yu neex rek a fa am ah, yu neex rek gars yi nag bëggu ñoo def ah, waaye neex na de boobu neex na trop waaw neex na lool. neex na trop dara newoo ko lu neex dong nga fa nekk ak yu baax waaye du yu baax rek yu baax dong nga fa nekk lakk sa picc nga fa misibee nga fa yëpp nga fa maa la ko wax billahi wal kitaab yëpp nga fa waaw yëpp nga fa yëpp yëpp yëpp mu nga fa boo demee gis sëñ Touba bu la neexee gis El Hadj Malick bu la si neexee a seeti rek dañ nga seeti ko comme fii ma leen di wax nii yàggul matagul deux semaines. benn waa ji ne ma man li ma jaaxal mooy moom ki ni ma leen gisee gis naa ko ñu sol ay jiin te biñ leen di rob dañ leen robaale ak kii biñ koy karkar mais sol ma gis leen ñuy dox doxan du mel ni kuy dem marché yor seen mbuus ak yooyu ma ne ko boo demee nature bi am fi mooy am foofu percal bi a kamafule la rek dañ lay kamafule nga dem waaye boo demee ba yegg foofu li nga daan sol fii ngay sol foofu ba ëllëg nag bés bañ ci booy duggee àjjina changé ak accoutrement min sun du sin xodorin yooyu na commencé di ñëw ndax yooyu mooy dëkk bi nag waaw min sun du sin min xodorin wóolu ñu ay ka annahum lu maknuun waaw jazaan bi ma kaanu ya'maluun yooyu commencé di ñëw fiihaa faakihatun wa laxmi tayrin mimma yashtahun waaw wa laxmi tayrin mimma yashtahun yooyu yëpp commencé di ñëw nag lakk sa picc moom la jigéen ñi di lakk sa picc <laughs> waaw wa laxmi tayrin wa laxmi tayrin mimma yashtahun waaw wa faakixatun pomme yoo xam ne boo koy lekk doo bëgg a bàyyi te du jeex banaana yi géej gi yor le sàngara sàngara soo xam ne boo ci naanee yonent bi ne na am na kuy naan ci sàngara si ba gi dañ ko naan sa parfum bi ne am na di bii foo ko jëlee mu ne leen pourtant sàngara laa doon naan niir sàngara sa doon mandil moo gën a neex misk moo gën a neex misk waaw yonent boo demee ci fiyaa sururun marfuwa wa akwaabun mawduwa wa namaariqun masfuufa wa zarabiyu mabsuusa waay waay afalaa yanzuruna ilal ibili kayfa xuliqat وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر xam nga lu tax mu ne la woon yooyu daf lay woon ne man mi def lii bu ma la waxee loolu am naa ko xam nga da ngay duut duutal bi mu la waxee ne lal bi épaisseur bi trent mètres la épaisseur bi ba matelas bi rek lal bi ñëw 30 mètres la lal bi door a ñëw matelas bi tege ci mu ne fiyaa sururun mabsuusa fiyaa sururun wa zaraabiyu mabsuusa ba tey lii moom la ñuy jéem a roy wa zaraabiyu ak garab yoo xam ne mabsuusa dañ dafa talli weex tal am ay dessin te boo ci tëddee ba xalamu it du suufu ne mukk loo tëradi tëradi du suufu ne du tilim du poussière du pënd du lallee ko te bët bu set ñu changé la garab bu bokk la moromam moo tax mu ne wa zarabi bu wa ne la xam naa yaa ngi diit diital gëmoo ko afalaa yanzuruna ilal ibili kayfa xuliqat yow mi may wéet di gisoo gëlëm ku ko bind ku dul man wa ila samaay xoolal asamaan man mi lay wax lii kayfa rufiat xoolal ñi ma ko yëkkatee yow mi may jéem a weddi wa ilal ardi xoolal suuf xamoo fu mu yem kayfa sutihat waaye fa zakiru fàttale ko ma xamal na li wax mën naa ko fa zakir fàttaliku xamal ne li may wax mën naa ko àjjana ji ma la dig am naa ko la fa nekk mën naa ko xoolal asamaan ku bind asamaan xam nga ne lim la dig mën na ko gëlëm gii di ŋaax ku ko bind xam nga ne mën na loolu suuf si tàlli ngay gas di suul di fëlañu di dawal soot te pëtaxut ki mën loolu mën na la fa zakir fa zakir yàlla lu ne wax na ko bëgg ñu dem àjjana ñu lànk ne duñ dem lu ne yàlla wax wax xurin ay nit sëriñ Cheikh nee na xale yi lañ koy naxee na ndax yàlla bu ko wax doon xale yi duñ nangoo jaamu yàlla mu ne waaye mag ñi weesu nañ foofu ay banaan ak i pop jigéen ñu seen bët yi ne làq mu ne ñun passé nañ foofu mais gone yi lañ koy nax xam mu ne gone yi lañ koy naxee pour ñu xemem àjjana mën a jaamu yàlla waaye ñun soxlawuñu àjjana soxlawuñu ña fa ne ki bind àjjana lañ soxla mu ne waaye boo yeggul foofu nag yemal ci pom ji rek baax na dee Serigne Cheikh ne baax na dee waaw mu ne boo yeggul foofu yemal ci pom ji baax na dee baax na dee mu ne waaye ñun nag weesu nañ ko bind yooyu lañ bëgg. Ah, na ko moo tax mu ne buñ duggee ba noppi nag mu ne foo la day naa masir am na lu ma leen di dolli mu ne ñëpp jaaxle. Hmm. ne ko yàlla fii li fi nekk ci teranga loo ñuy dollee te lu ëpp nii mu ne ñu xeet jëmmam ne maa ngi. moo dàq lépp mu ne nga gis koo xam ne dootul xam sax àjjana la nekk wala nekkul àjjana ndax jëmm yàlla ji dàq àjjana moo dàq. ki bind àjjana moo dàq àjjana yàlla loo ko melale rek ëpp na loo ko melale rek moo gën a rafet loolu moo ëpp loolu kon yan nañu yàlla defal si nañ mën tuuti rek yàggatul incha allah gannaaw bu ñu dindee téeméeri at xanaa yéene naa leen téeméeri at baax na baax na ah, baax na baax na de baax na de baax na ngay yuut ah déedéet Cheikh naa yéen joxasal ma sama góor gi yow ay yow yow moo doon xaj nga rek joxasal ma sama góor gi yàlla na nga yegg fi ma yegg rek jox Iblis la yow yow defaral ataay ji waaye ne woyof nag na woyof. Serigne Cheikh nee na boo ca yeggee nag tool la ca naan defaral ma ruy waaye na woyof lool mu ne Saalum ngeen ruy woyof na ba noppi. sëriñ Cheikh ne ruy na woyof lool mu ne ruy kañ woyof na mën ta weesu ruy bi wala ya wala yar nañ ca tool ba nag téeméeri at yoo xam ne nag naa rek nekk ngay sàqami yàpp yi baax na yàlla na ko nañ ko ko ñaan bañ ñi nekk fii ngay sàqami yàq bii ñu naan paa bii du deemu fii lay toog di xulleeku rek am na téeméeri at xoolal bëñëm yi nga naan leen mbas ma leen yéen waaw fekk lépp rek jàmm yàlla na ko yàlla def yàlla mën na ko nañ ko ko ñaan du ragal dee du ragal dee mais bëgg a defal yàlla dara parce que lii ñuy def bu ñu dee dàq na dootuñu ko mën te lii yee dàq dee te lii yee dàq dee ndax boo dee da ngay noos kooku noos la kooku noos la dootoo julli dootoo jaamu yàlla dootoo wér dootoo sikkar dootoo def dara noos la noos la te nit nag war naa weesu noos balaa ngay waa balaa ngay weesu cadre noos bi dugg àjjana mais barzaq moom pour noosukaay la foofu c'est pour pagaille la foofu pagaille la foofu la pagaille bi tàmbalee foofu mooy lancement film àjjana foofu ngay commencé nag di pagaille di doose di korom bu doose waaye sama àjjana ji gisoo wan nañ ko oh, maa la dàqal danaan la waaye yow gis sama bos beneen maa la nga xam lu xew yow dañ toog ba ëllëg wante moo fa am bar dàq boo duggee àjjana nag foofu la somme bi nekk am foofu ngay gis yonent yi kenn ku ne di jaayu ci gàngaayam nga ne gis sëñ Touba mbooloo Cheikh na Tidiane ak mbooloo moom la ñaar di waxoon ne bu ëllëgee nga gis taalibi cheikh yi ñuy sàmbandaay ay yonent mu ne ñu yonent yi di matt seen poli baaraam yi naan yaa laytani ñu bokk ci taalibi cheikh yi sëñ Hadi tureeku kon yooyu yëpp nañ ci góor góorgóorlu rek nañ góorgóorlu soppante bëggante bàyyiwante xel te yéenewante jàmm su amee rek yàlla defal ñu luñ bëgg sa kenn ku ne yàlla noppi na ci yow sa destin mënoo ko ci yàlla pare na pare na ci ñun ñëpp kenn ku ne fi nga war a jaar di fa jaar li nga war a am di nga ko li nga war a def di nga ko def ci sa loxo la nekk nag yaa koy manipuler yaay au le yaa des hauts et des pour mu nekk haut yow la pour mu nekk bas yow la yaay tax yaay def lu tax mu nekk o yaay tax lu def yaay def lu tax mu nekk baax ñun ñëpp nañ góorgóorlu na ci mu nekk o rek bañ ñu nekk baax la Seydina Ali waxoon xam naa dana ci ñëw sama ngëm yegg na foo xam ne dootul yokk ndax maa nga ci sommet ba dootul yokk ni may gëmee yonent bi gëmee ko yàlla mu ne noppalu leen man Ali dootul yokk maa ngi ci sommet ba plafond ba fa laa yem fa ngëm yem xam nga ko moom itam saaba yi da kenn xamul ñan la yal nañu yàlla taas ci seen barke yal nañu yàlla taas ci seen barke yal nañ dund téeméeri at kenn ku ci ne ci ñun yal na dund téeméeri at yu teg tuuti sax yu teg tuuti waaw na teg juróom wala mu teg fukk waaw àddina bi day waaj a jeex boobu nag yéen itam na nag doy na téeméeri at yu teg baax na bu bu tegee fukki bu tegee juróom yeneen muy fukk baax na wala day naan ma zip ah, su ko defee nag nga toog nag ah, eh, def ni si la ñu def préparé ne yàlla bis bi ñëw na baax na bismillah bu ma demee baax na ah, mu ñëw ak jàmm ñëw ak salaam maw di ñëw foog yow kafak yow reeg yow dóor pikir bi dem yoon waaw moom noonu bu la bu la namat naralee jàmm noonu lay def doo ko xam ne day jël sa ndey wala sa baay ñëw di waxtaan ak yow moo tax nga gis ku ci tollu naan suñ laa gis mu ne dama lay jël si naa Alaaji Maalik mu ne daf may gis naa diw mu ne daf may jël si malaaka mee yàlla jël seen jëm parce que dañ leen sopp muy di waxtaan ak yow nga foog ne Alaaji Maalik ngay waxtaan ak yow wala Serigne Touba bu dee taalibe Serigne Touba fekk malakul mawti mooy waxtaan ak yow pour naxtaan la jël sa rox ndax ki nga la gën a bëgg la lay indil di wax ak yow nga naan waaw sëñ Babacar mu naan la El mu ngi lay nuyu si ñàpp mu lay nuyu Serigne Cheikh mu lay nuyu muy naxante yow ba ci rox gi nga noonu rek la nag noonu rek la du neneen du neneen bu ñi amul kilifa nag ñooñu dañuy jëli benn mouchoir ca àjjana maanaam ñi tànnal kilifa dañuy jëli mouchoir ci àjjana boo ko déggee nag da ngay foog ne booboo ëpp valeur ëpp valeur xam nga lu tax dem aéroport président teeru ak dem rek aéroport sa jabar teelu bu dàq. Ah, <laughs> la sa jabar baax baax baax président teeru la ko dàq. wala de ndax dina la maqal loo xam ne boo demee soxna sa kontaan. moo tax kilifa yooyu seen àjjana yi moo gën a kowe suñ la teeroo yaa ngi ñoomay bokk àjjana looloy secret bi buñ la jëlalee mouchoir ci sa àjjana nag mooy sa àjjana dong nga am yow mouchoir lañ fay jëlee di la ko wan dessin ya fa nekk ak yi ma doon wax ni zarabi yu mabsuusa xawru ni yooyu di la ko wan di la ko pat di la wan naan fii mooy saal sàngam bi mooy jardin sangam wil daanun mu xal yaa ngi nii nga naan ah ñu ne day ñu fekk onk woo de da ngay tontuwanteeg malakul mawti ah ah ah laa ilaha illallah ba ñu roox dem mu xulli bëri fekk loolu la ne di ko xool moo tax mu xulli bëri wala yonent bi ne bu paree nag na ngeen ko raxe mu gëmmaale image boobu lay yóbbaale. bu dee ki am kilifa nag kilifa may toog ci wetam naan ko bul tiit man la Serigne Babacar man la laa laaj Abdoul Aziz ñu ngi nii ñaange lay bokk am armel ñooy bokk bàmmeel ñooy bokk barsax Cheikh na Tidiane mu ngi xaar xanaa gisoo yoon wi gisoo lii gisoo lii gisoo lii ba wax gi def moom day waxtaan ak yow bi ba ngay def looloo dàq. nga naan waaw moo tax ngay gis kuy waxtu rek waaw sëñ Babacar si El mbepp mbepp mbepp mbepp ngay am na man gis naa ko ba tey voilà wa hakaza loolu am kilifa sa kilifa lay teeru yóbbu la kii nag dañ koy wan te demagul du benn du benn kañ yal nañu yàlla may kilifa kilifa rek am solo nañ yàlla may kilifa te suñ kilifa yi doy nañ kilifa doy nañ kilifa ki la dig ndékki jox la ko mu fatt tarek billaay bu la nee añ am na ci kër gi boo yeboo gëm te toog defar sëriñ waaw ñu itam yeneen ah. li ngay dégg doo ko dégg faneen mukk li nga fiy gis doo ko dégg faneen ba ma dalee dégg prix ca àll yu saaxoo fu mu daantan maa nga fa waaye li may dégg ci yow mi duma ko dégg fenn man daal li ma naqari bu ma delluwaataan di ndaw du ma yow ba ilaa yow mi diiri. jërëjëf sëñ Maxtaar ku baax la saa bu jógee États-Unis rek mu ngi fii moom ñu ne fii nekk ba ba muy delluwaat États-Unis. waaw wax dëgg yàlla yal na yàlla defal dëgg ak toog ngeen baal ma xam ko nag wax ji danay bari jotaay bi danay yàgg waaye dara rek billaay maa gën a sonn ñëpp yàlla seede na ko li may def mu ma ko xaw ma sax lu tax ma di ko def xaw ma yàlla seede na xaw ma sax lu tax ma di ko def ko kàttan gi mayu ma ko leneen mayuma ko waaye am naa cofeel ci yàlla ak jaamam yi boo xam ne du ma ko sax yóbbu yàlla sedd na ko loolu rek a may yóbbu may puus moo may puus may dem waaye mënu ko kon nag su ma leen téyee ba heure bi maa ngi ciy jégalu bu baax a baax am na ñu jëm fu sori am na ñu jëm foo xam ne amuñu waruwaay waaye ku génn rek yàlla na nga gis lu gaaw lu la yóbbu nga dem ci salaam ñëw ci salaam nee na ko yàlla def ci góor ak ci jigéen te yàlla sàmm ñëpp nag aar ñëpp musal ñëpp may ñëpp koom may ñëpp wërsëg may ñu gudd fan lool téeméeri at yu teg ñu am ko fekk suñu yaram soofu soofu waxuma laak feebar suñuy bëñ demul suñuy bët naqariwul suñuy tànk bañul suñuy loxo bañul dara métti wuñ ñu ngi am jàmm am salaam am lu ñuy teddee am njaboot goo xam ne boo leen xoolee rek sa xel dal sa ginnaaw ndax mel nañ ñi nga bëgg yal nañu ko yàlla defal bedem jot na ñu dem ci baatu laa ilaha illa allah sayiduna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ba ajuma jàmm incha allah suñu julli gee ñu julli war gee nag ñu yeewi leen ñoom ñu def